jërë ngeen jëf amee fidèle internet di ñuy seetaan à travers plateforme yi fi nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax comme ça su nekk rek di leen dalal di waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di suñu papa Iran comme ni ñu koy defee chaque samedi rek di ñëw fi nga xamante ne moom moo di Sen TV di waxtaanee actualité moo xam politique la fait divers wala sax li nga xamante ne moom moo di people euh, tey nag ñu jàkkaarloo waat ak moom nawet waxtaan ak waxtaan bu am solo papa Iran nuyu naa la bàyyi la ñu bokk. fay nañ la ñu leen di delloo nuyoo. ñu mm-hmm. leen delloo ziar. di leen baal àq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa papa Iran liñ koy doore nek li nga xamante mom modi gamu gi tax buñu ñu wu ni que léegi mu ñëw naka lañu wara war waajal li nga xamante mom modi gamu gamu mom gàmmu allah wa atiu rasul wa ulul amri lo rek kay gamu atiu allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum nañu waxtaane jaamu yàlla naka la ñuy jaamoo yàlla ndax nit ñi ñu bëri xamuñu dara ci jaamu yàlla ñu bëri nag laa la ñu bëree ngi dem di eh, ci gàmmu yi te duñ xam dara ci jaamu yàlla nañ leen jàngal jaamu yàlla ba ñu xam luy jaamu yàlla ñu jàngal leen roy ci yonent bi ba ñu xam luy roy ci yonent bi ñu jàngal leen jàpp ñaari jur naka lañ koy defee lii mooy gàmmu mu jeex bu ñu xamee yàlla roy yonent bi ah topp su ñaari wuy ju jaan ñaari wuy ju nag la yàlla xam nga yéen am na lu ngeen du seetlu ci nit ñi xale boo góor boo gis mu ne man daal man maa ngi bëgg yàlla dimbali ma ba ma ba ma yóbbu sama yaay màgg waaw sa baay noo koy def ñépp seen bi yaay rek la ñuy wax te yàlla waxul loolu yaay ak bàyyi la wax wa bil waalidayni ihsaanan sa ñaari wuy jur la yàlla wax waxul nga wax jàpp jàpp sa ndey rek yonent yàlla Isaa rek la ñu may mu jàpp ndeyam ndax amul baay wa barran bi waalidati wa barran bi waalidati moom rek lañ may loolu moom mu topp ndax ndey rek la am amul baay waaye nag am sa baay ba pare te doo ko topp du noonu dangay topp sa ndigalu baay topp sa ndigalu ndey loolu mooy mooy mooy mbir mi moo tax moom moom moom wa baran bi yi waaye ku dul moom ñun ñëpp dañoo war a fonk ñëpp fonkal sa baay fonkal sa ndey fonkal sa baay fonkal sa ndey fonkal sa baay fonkal sa ndey ñoom ñëpp nga fonk leen waaw kay kon nag gàmmu mooy dañuy waxtaane yàlla mi ñu bind lu tax mu bind wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa bind nit maa bind jinne dara taxul ma bind lu ñu jaamu ma waaw kon jaamu yàlla ni ñu koy defee nga wax ko nit ñi waaw ñu xam ñu xam ne lii lañuy jaamu yàlla xëy na du xaj sa ca ca détail ba waaye du tee niñ ko def rek nañ ca boyal dara waaw suñ paree wax nit nag nañuy roy yonent bi ndax yonent bi lañu yàlla booleel nag waaw yonent bi lañu yàlla booleel waaw gannaaw moom lañ ñu booleel te kiñ la booleel boo ko sàgganee doo dem kon nañ xam kuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi bi ci des mooy ñaari wuy jur ñu fonk leen ku am baay na ko fonk ku am ndey na ko fonk ko sa baay faat sa yaay dund nga fonk sa yaay di ñaanal sa baay nit daal dafa war a fonk ñaari wuy juróom waxuñ la nga jël sa benn wuy jura nga xale boo gis mu naan man daal nga baba paas màkk laa bëgg yóbbu sama yaay màkk mbëri yéeg misien yéeg ñépp loolu la ñuy wax ba ba yóbbu sama yaay màkk waa an sa baay boo demee yàlla ne la yow xanaa amoo baay looy wax waaw déet boo demee yàlla ne la yow xanaa amoo baay nooy def wala doo dégg mukk ne fonk sama baay fonk sama ndey la wax dina yàlla ñaari wuy jur la wax wa waalidin wa maa walada ñëwaat na wa waalidin waaw boo defee nag loolu ñu bàyyi ko xel buñ ko xamalee nit ñi rek doy na waaw nañ leen xamal loolu waaye buñ fa indi ay xuraafaat ay wax yi nangam na non non nañu wax li nga xam ne moo tax yàlla bind ñu muy jaamu yàlla ñu xam yàlla xam yonent bi xam suñu ñaari waajur doy na sëkk loolay xam bi xam yàlla xam yonent bi xam suñu ñaari waajur doy na sëkk ati ollaaha mu jeex wa atiu rasul mu jeex wa ulul amri minkum mu waaw topp leen yàlla jaamu leen yàlla roy leen yonent bi toppatoo leen seen ñaari waajur waaw ñu bëri waxee lépp yaay la ñuy wax euh, ndax li nga xamante ni moom lañu ñu laajal yonent bi mu wax trois fois yaayam ñu bëri ci loolu la ñu jàpp moo tax à chaque fois bu ñu waxee rek ñu ni yaay ñu ni yaay naka la loolu waaw xam nga loolu ay ay ay wax la rek yoo xam ne dañ koy sànni rek yàlla dafa wax yonent bi ne ko nañu fonk ñaari way jur waaw muy baay ak ndey nañ ko fonk fonkal sa baay fonkal sa yaay mu jeex soo leen fonkee fonk nga lépp waaye boo leen sàgganee doo dem boo dégg yonent bi ne boo amee ñetti junni joxal sa yaay ñaari junni ndax moo gën a néew doole jox sa baay junni bi ndax am na doole waaw waaye xoolal leen buñ ko jëlee jox ko jox ko sa yaay boo joxee sa yaay ñetti junni jox sa baay benn junni sa yaay bu fekkee mat na jigéen mat na jigéen te nekk sëykat day jël ñaar junneem jox jëkkëram waaw mu boole mu boole junni muy ñetti junni ndax moo yor kër gi waaye bu dee léegi nag ndaw si da koy jël fas waaw da koy jël fas waxuñ la loolu waaw da jox sa wuy jur ñaari junni bu jigéen sa wuy jur bu góor nga jox ko ne loolu loolu taxul ñu ne la nga fonk sa ndey bàyyi sa bàyyi taxul taxul la de dañu ne la fonk leen ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp loo am taxawu leen loo am fonk leen loolu moo gën waaye nag sàggane sa jur euh, sa wuy góor euh, jël sa wuy jur wu jigéen yëkkati ko loolu loolu dara da ngay fexe ba ñoom ñëpp ñu gërëm la nañ la gërëm ñoom ñëpp suñ la gërëmee rek nga dem soo fexee ba sa baay gërëm la sa yaay gërëm la nga dem waaye kër goo xam ne sama ndey sama ndey rek lañ fa bàyyi ci biir kër gi bàyyi bokk lu loolu luy loolu waaw di doyul waar ah, ko koy ëpp naa tool waaw donc kon nag ni ñu fonk wuy jur yi bàyyi fonk ndey fonk ah, bu ko defee nag mu baax waaye waaye jël cër nag jox ko keneen koo xam ne da ngay gis taal ba tey koo xam di jël cër bu rëy rëy jox ko nit ki jël euh, bàyyi bàyyam ci gannaaw bàyyi ndeyam ci gannaaw waaw jox ah, jox ko duñ ko jox seen wuy jur jox ko baayam duñ ko jox seen baay duñ ko jox seen ndey dañ koy jox benn nit ci loolu du dëgg eh, gis nga eh, maa ngi déglu benn eh, waxu sa Pape Sylla Pape Sylla benn la tudd Pape Sylla mu ni sëñ Mansour dafa am benn bés dafa am benn bés Dame mën soo jógee meewaan indi ay ginaar yu ngand ma euh, ganaar yu rëy rëy ba mu ko indee ñëw Tiwaawan laajte ko ñu ne ko moom de dem na Mboro. mu toppaat sëñ Mansour ba Mboro ba mu demee mu teg ganaar ya dem nuyu ko waxtaan moom yëkkati enveloppe jox ko ne ko mu ne ko lii lan la mu ne ko lee ay ganaar la mu ne ko ganaar yi moom foo ko jëlee mu ne ko ganaar de maa ko yar mu ne ko sa biir kër nga ko yare sa kër bàyyi mu ne ko waaw mu ne ko ba mu toll nii mu ne ko waaw mu ne jël ko indil ma ko pour man ko mu ne ko waaw ne ko yaa déedéet da koy delloo ko sa kër ga soo demee nga jox ko sa baay ak sa yaay ñu ndawaloo ko man ko topp ñaari wuy juróom laa mën a ñaanal waaye du mënumaa ñaanal ko toppul waaye ñaari wuy juróom wax bu dëggoo noonu amul fenn sa ñaari wuy jur boo leen toppee ku la ñaanal mu nangu ku la ñaanal mu nangu ku la ñaanal sax boo ñaanal sa bopp mu nangu boo ñaanu sax yàlla defal la fonk wuy jur dafa baax fonk sa ñaari wuy jur dafa baax sëñ Babacar Sy radiyallahu taala benn xale mas naa ñëw euh, tabaski jot mu am trente mille francs baay bi ne ko man de tabaski dafa ñu ma bëggoon nga dimbale ma tabaski bi mu ne ko ah man sama li ma yor suñ Babacar laa ko yóbbu sama sëriñ waaye nag gis nga sëriñ ba ma sëriñ baax na na fa taal bi na taal bi ba dem rek ba mu demee fekk sëñ baabakar a ngi toog mu ne ko boo demee ziyaare waatal ma ko seetal ma sëñ Babacar bu baax ba mu ñëwee mu sukk dirang dirang dirang ba yegg sëñ Babacar sëñ Babacar nuyu ko téye ko ne ko naka def mu ne ko maa ngi mu ne ko ana sa bàyyi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko gis nga enveloppe bii li ci ne ñeenti junni yóbbu ko mu boole ko eh, ñaari junni yem yore muy juróom benn junni mu def ko tabaski mu tiit lu ko wax sëñ Babacar ko jaaxal buy wut wutal sëriñ bu xam lépp sëriñ boo xam ne dalay fegal ay musiba waaye tey boo ko joxoon benn am na sëriñ boo xam boo ko joxoon mu la waaye itam lii daa tuuti waaw man nga ko def lu bari waaw xepp waaye daf koo naw ne ko yóbbul ko sa wuy jur soo demee boole ko la nga ko joxoon génn ko tabaski ñu jëndee ko tabaski loolu muy wuy jur waaw kay alors li nga xamante ni moom moo di gàmm yi gis nañu ko sax même màggal yi folklore moo ci ëpp ci niñ koy defee est-ce que loolu am na loo xamante ni l'islam mën na ko cee teg comme ay daan ngene ngene lana lana gàmm yi ak màggal yi maanaam xumbaay yeeg mbumbaay yi affaire di affaire kii daal di affaire àdduna waa waaw comme ni ko olof di waxee moo ci ëpp ku këré boobu man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa aleyha ku def lu baax sa bopp nga ko defal ku def lu bon sa bopp nga ko def nañ leen bàyyi gis nga gàmm yi nga gis ak euh, gàmm yi nga gis màggali kenn ku ne ak la nga la nga dem loola ngay am waaw kenn ku ne la la yóbbu rek ngay am ku dem pour tiitaru loolu ngay am ku dem ngir yàlla loolu ngay am ku dem ngir yonent bi loolu ngay am ku dem ngir sëñ Tuubaa loolu ngay am nit ki dafa war a seet la tax mu dem Alaaji Maalik dafa wax ni ألا عظموا ليل الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول لولو سيدي هاجي مالو نينا ماغلين غود جود يونينتي سو فكنت نا لو حرام دو فام بو فلو حرام دي ام نا بايلين واو كون نا موتا ام نا ген غور غون وخون ني دو غام مو ني غام دا ام اوتوريزاسيون سيدي هاجي مالو لا في خام مو ام اوتوريزاسيون بايل ما ديم سي غام تي لولو موي دغ دجيلي اي نيت دنج لين دي واخ yéen daal kuy gàmm si ñëwal ngir yonent bi ku ñëw ngir leneen nag man man resuma la waaw ñëwal ngir yonent bi kon ñoo ñuy dem ngir puukar yi loolu rek lañ ci am yàlla gëmul nelawul yàlla du gëmmul laa taquduhu sinnatun wala nawmun yàlla du gëmmintu du nelaw koo koy jaru jax jarul wax ku ne la la yóbbu rek ngay am waaw ku ne la la yóbbu ngay am innama al amalu binniyaat wa innama li kulli imri ma nawa kenn ku ne la la nga yéene rek ngay am boo demee jeex na particular dégguma li nga wax de dégguma li nga wax de dafa dafa gan ñoo xam ne dañu ñëw pour màggal gi dem dal benn hôtel bañ demee ba nga xam ne war a ñëw ci màgg ñu tere leen ko ah <laughs> koo koo koy ah hôtel ba lañ leen tere ko Cheikh Omar Diagne leen tere lu tax ñu tere leen hôtel bi kooku nañ ko denc foofu delloo ko Cheikh Omar Diagne <laughs> nañ denc boobu delloo ko lu tax mu tere leen hôtel bi te di jullit kon ñoom buñ ñu fa daloon duñ fay duñ fay dara ay ah, affaire baa bu fekkee ne duñ fay ak état bee ko war a fay loolu loolu du yoon di kuy jóg ngi dem ci réew dal ci hôtel dangaa fara war a fay hôtel ba nga dal mooy dëgg dangaa war a fey otel ba nga dal waaye doo dem ñu la koy fayal yow itam suñ ne nag nañ leen ko fayal Cheikh Omar ne ah loolu li ñun mënuñu ko jeex na ñoom buñ ko manee baa ñu def ni nit ñi def dem ca gàmm ga ca màggal ga dal fan ñuy dal buñ paree ñu ñibbi loolu ku ne ku ne ku ne xam nga la gën a jaadu ku ne xam nga la gën a jaadu gën a jaadu waaye daal Cheikh Omar Diagne daal laaj bàngoog lu ko waral laaj bàngoog lu waral daal gan ñooñu daluñ ci hôtel bi laaj bi nañ ko jox Cheikh Omar Diagne ndax bala ñoo tooñ jàmbur nañ ko laaj mu wax lu tax kon nag mu ngoog Cheikh Omar yaa mbir maa loolu mel na. ci village yi bi day accompagner euh, hmm. waaw man de yaakaar naa ne kuy gàmm da ko man li ma yaakaar laa man man daal li may yaakaar mooy kuy gàmm da nga ko man man de damay gàmm sama gàmm laajuma kenn dara. danaa teral nit ñi lu mat 15 jours gàmmu gi doo ko ñëw dara duma ko laaj laaj laajuma kenn dara ko fa joxe yaa xam ko joxool yaa xam parce que mbir da nga koy man yaakaar naa ni Touba ah, sa waaye xanaa ko fa def yaa xam ku fa deful yaa xam waaye man man nañ seen bopp Tiwaawoon bu ñu demee mën nañ seen bopp gàmmoog màggal ak yëpp a ci yem nañu nañu préparé suñ bopp rek toog di xaar gàmmu gi daal nañu préparé yow gan ñoo xam ni ñëpp di nga ñëm jëm Tiwaawoon bu ñu ñëwee fa ñuy dal Euh, ka leen di yore danañ leen taxawu taxawu bu rafet danañ euh, danañ am euh, teraanga bu doy ah, parce que loolu moo gën waaw ah, moo gën li ci des doxul waaw ah, li ci des doxul kon nag li liñ leen daan defal privilégié ak nangam nangam yooyu dañ koy wàññi fi nañ ko bàyyi sax suñ ko bàyyi woon du wàññi dara du wàññi dara ci gàmmu gi gàmmu gi day dox gàmmu gi gàmmu na boppam ñun dañ ciy lang rek waaye gàmmu na boppam bala nga koo xam nga laaj ñu dëkk Tiwaawan bu gàmmu jub dañuy jàmbat di jàmm bu gàmmu gi ñëw nag kenn du xam li indi li indi yëf yëf yi mhm. waaw xéewal gi day ñëw teraanga bi di ñëw kenn ku ne sa kër danga desal loo xam ne doo xam nu mu toll ndax bëri kon kay doy na gouvernement bu leen dimbalee baax na bu leen dimbalewul baax na gouvernement la bu leen dimbalee baax na bu leen dimbalewul baax na muy tuubaa muy Tiwaawan muy Njaasaan muy fu mu mën a doon nañ bu ñu leen dimbalee baax na xam nga nit doo ko forcer ne ko damay gàmmu dimbale ma kenn du ko forcer nit gouvernement bi waxul kenn ne la gàmmool yow yaa seet ne damay gàmmu kon kay koy gàmmu war nga koo man gannaaw gouvernement bi santul kenn bu la santoon nag ne la gàmmool kooku mooy yor gàmmu ko ak la ca war yëpp gouvernement bay koy def waaye nag yow yaa seet sa bopp seet sa gàmm bopp gàmmu gi alaaji maali ga nga ko doon def yàgg na yàgg na Maodo fu mu mas a nekk def na fa gàmm fu mu mas a nekk dëkk bu mu mas a nekk rek def na fa gàmm bu moom rek ba ñëw Tiwaawan def fi gàmmu moo ay ñaari nit ñett nit otu dugub ñu togg seen cere lekk jàng def seen ñaan def seen jàng def seen lépp jeex na ba mu ne nag ba mu ko defee mu ne nag yàlla bu fekkee ni lii may def yow rek yaa tax yàlla na jëm kanam soo taxul na fi yem defe naa tax na de ah tax na de tey gàmmu gaa ngi ni maar day taali kenn xamul fu nit ñi jógee ak ak ak la fay xew ci yiw ak teraanga ak lépp kon nag mbir mi daal nañ ko bàyyi noonu kuy gàmm da nga koy man luñ ci indi nga def ko fële baax na ah da lu ñu fay digg. nee <laughs> xam nga eh, moom daal li sëñ Bass Abdou Khadre wax daal dëgg la. ñun daal mën nañ suñu bopp. mën nañ suñu bopp ñu ngi toppatoo suñu màggal lu ca war danañ ko def. infrastructure xaw ma lan nga ko waxee. ah ah infrastructure. waaw ah, déedéet du noonu nag. naan <laughs> ah, waaw yaa ñeme yàlla <laughs> waaw léegi nag loolu nga xam ne gouvernement ko moom yoonu état la état la koy bàyyeel moo tax mu ni ñoom nañ ko toppatoo loolu état moo ko moom gis nga gàmm li état bi moom na ko toppatoo li li li sëriñ bi moom na ko toppatoo kenn ku ne toppatoo sa wàll waaye màggal bu fekkee ne def nañ la ñu war a def la ca des nag mooy loolu nañ dagg yoon yi defar dëkk ba ba mu ba mu jaar yoon ndax ndox mi ni muy mel dafa ëpp waaw ndox mi ni muy mel dafa ëpp waaw bu ko defee nag loolu baax na ci dagg yoon yi dagg dafa dëkk ba ba mu ba mu jaar yoon ba mu nekk normal loolu moo gën parce que gàmmo da ku koy def ti mënoo ko sooy ba bàyyi ko gàmmo daal man li ma ci xam loolu la boo koy def mënoo ko bàyyi ko bul ci seet kenn parce que yaa ko defoon xam ngeen ne gàmmu Tiwaawan ba àdduna tukki duñ ko bàyyi ba àdduna tukki duñ ko bàyyi ndax at mu ñëwee ñu man suñu bopp duñ ko bàyyi abadan kon kay baax na màggal Tuubaa duñ ko bàyyi ña jaru xalaat këru mag ñi li fa ne ci ay samp li fa ne ci ay ay ay yaakaar duñu tas yooyu yëpp ndax wax waxu état ah, ak état deful li état deful li état na na def la man rek na def la man la mënul mu bàyyi ko diggee ko ti fas ko yéenee def waaye nag boo ko diggee ti doo ko def du baax déedéet